man ngeen di jaw yow yaay kan bañ lay jaw xanaa booy jëw nit ki day fekk nga ragal ko euh. te ñu ragaluñ la te lijjantiwuñ la li ngeen waxoon laa bëgg ngeen dellu ci buñ ci delluwaatee fii kër gu tas góor ñee ko tas lii yëpp yow la gis nga boo yoree ay jabar ci kër te mënoo leen yemale mu leen dajale mais du man waxal kan la doo wax lan la. lan la ci lan. dama dégg nga mën ni kuy yuuxu koy coowal. lan moo ci sa yoon. eh xam nga lu mu bëgg. nanga yam sa place ah. lu ma neex laay def. bëgg naa la trop loo taala waaye loolu ànduma ceeg lan moo ci sa yoon. lan moo ci sa yoon. Tamar wolof nee jotaay boo fekk jàmm. daa am ko fa xam dara te waxu kon bu yow dafa am loo xam war ma koo wax waxoo ma ko waxal ma dégg luy loolu danga koy laaj sa baajan sama man baajan soxna ba too xanaa jotaay boo fekk jàmm daa am ku fa xam dara te wax ko kon bu yow dafa am xam war ma ko wax waxoo ma waxal ma dégg